Bambey séeréer nekk ci route nationale bi boo bàyyeekoo Diourbel jëm Dakar mu nekk dëkk boo xamante ni dëkkub séeréer la waaye it nekk dëkk boo xam ne ay taalibe ñoom ñoo fi nekk ay taalibe yu dëggu ay yoo xamante ni dañoo bëgg Cheikhul Khadim ndax loolu lañ gis bi ñu agsee ci dëkk bi ak ni nga xam ne noonu lañ dalalee caravane bi donc ñu waajal euh, bërëb boo xamante ni mu nekk ni suñ ginnaaw muy bâche bu mucc ayib boo xam ne incha allah fi lañ fas yéene defee waxtaan wi waaye ak mboolem kilifa yi nga xam ne incha allah ñoom lañ fi fekk kon mbokki téléspectateurs yi ñu bàyyi xel saa su ne tey di am mbégte lool lool lool lool ci bàyyi ngeen ñu bàyyi xel euh, ci fii nga xam ne moom moo di ci caravane bi donc tey ji incha allah ñu bàyyi leen nag li nga xam ne moom mooy waaye ko fii ci Bambey séeréer ñu dégtal ko mbokki téléspectateurs yi ci beneen étape caravane Magal Touba 1441 ginnaaw gàddaay gi atum 2019. a baax di leen nuyu ci tur Serigne Saliou Mbacké di leen dalal yéen délégation bi nga xamante ne yéen a ñëw ci caravane bi. te sëñ Modou Mbakke si jiite ko ci ndigalu Serigne Mountakha Mbakke mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te waral ay ceram di ci nuyuwaale sëñ Bass Abdou Khadre mi nga xam ne caravane bi moom moo koy jiite ak ndigalu Serigne Abdoul Ahad Gaynde Fatma mi nga xamante ne moo yore cellule de communication bi nga xamante ne mooy euh, mooy jëm ci wàllu magal Touba bi kon waa caravane bi nga xamante ne sëñ Modou Mbacké moo ko jiite Serigne Saliou Sène jooringu Bambey Séréer mu ngi leen di nuyu di leen dalal ah di leen siyaare di leen ndokkeel di leen mosawu coono ci caravane bi ñu ciy sant yàlla bu baax a baax na balaa ñuy sori des nañ leen présenter délégation bi nga xamante ne mbooloo mi nga xamante ne ñëw nañ di teeru gan yi mbooloo moomu sëriñ Mbacke bu sëñ Seex Tët Mbacke nga xamante ne Bambey la jóge mu ngi fii ci mbooloo bi Bambey Seereer ak li ko wër yëpp ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla defal ko ay tawfiix ñu ngi leen di xamal li tamit Bambey Seereer li ko wër yëpp ci ay dëkk boo tamlee ci ngooj ak li ko wér am na li ñuy wax ngooj 1 ak ngooj 2 délégation dëkk yooyu ñu ngi fi ñu ngi leen di xamal ne soo demee seew ak li ko wër seew 1 ak seew 2 yëpp ñoom it seen délégation ñëw na fi soo ñëwee it duut waa duut ki ñu ngi fi soo ñëwee délégation Sindian dëkk la mu ngi fi soo ñëwee délégation Njaajaan ñëw na fi délégation Kër Mordine mu ngi fi délégation Silaan mu ngi fi délégation Ñokel mu ngi fi délégation Thialé ñu ngi fi dëkk yooyu yëpp ñu ngi fi ak Bambey Séréer lu nga xam ne ñeenti dëkk la ñeenti village la Bambey Séréer un Bambey Séréer 2 Bambey Séréer 3 ak Bambey Séréer DV ak Toubé waa Tawa it ñëw nañ fi Tawa délégation Tawa ñu ngi fi waaye am na kilifa yi nga xamante ne aussi ñu ngi fi ci kilifa yoo xamante ne soo tamlee ci Serigne Ousmane fay moom moo représenté waa Serigne jaraaf fay mi nga xam ne Sëriñ Tuubaa ko seexaloon fii Bambey séréer Sëriñ Ousmane Fay ak njabootam ñëw na ci mbooloo mi soo ñëwee it Seex Aliou Diouf nga xamante ne Sëriñ Muka Sëriñ Mukabaro Mbake moo ko seexal mu ngi fi ak délégation seex ndigal itam mbooleem seexam yëpp ñoom Seex Ousmane Diouf Sëriñ Saliou juuf Sëriñ Babacar Gueye ñooñu ñëpp ñu ngi fi ànd ak seen i délégation seex Sëriñ Daawda Ngom waa kër Serigne Amdi la mu ngi fi ak délégation Serigne Modou njaay bu duut gi seexu Serigne Amdi Mbacké la mu ngi fi ak délégation soo xoolee ci tënk délégation boobu yëpp Serigne bi ñu ngi fi di leen nuyu di di di leen sagal di leen dalal di leen ñaanal ndax li nga xamante ne Bambey Seetal am na ko tey ndam la boo xam ne dootul dellu ginnaaw Serigne Cheikh Ndiaye ñu ngi ko doon fàtte mbari aussi mu ngi fi ak njabootam. léegi nag li nga xamante ne moo des ci waxtaan bi sëriñ moo du seen mais moo koy leeral wala cosaanu dëkk bi da koy tënk rek ndax xam nañ ne waxtu bi dafa jot kon sëñ bi zeeral nañ leen gërëm leen yal na leen yàlla yeggal fi wëral leen waaw Bambey Sène yëpp ñu ngi sant bu baax a baax Seexul Xadim ñàkku ñu dara ñoo ngi sant Sëriñ Tuubaa taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi ziare bu baax ñëpp ñu fi teew doy ñaan ñu teewlu waxtaan bi ndax lii ku ko am rek war ngaa sant Serigne Touba jërëjëf borom Touba ndax lii ku amee Serigne Touba tax bon sëñ bi duñ tuddal waaye des na wax loo xamante ne ay jaar-jaar la ci dëkk bi ak Serigne bi fi nekkoon baax na Serigne lii mu am nii Serigne Saliou la ko noonu ko may te firnde bi lii foto la loo xamante ne firnde la jaww ji daara ji ak ñu ñu àndaloon ci Serigne Saliou Mbacké fële ca fay bokk foofu keroog la leen ne xam nga leen ne Sëriñ Saliou Bamba Siré ci kër gi la bokk kon ñu ko la boo leen Sëriñ Saliou mooy suñu lépp beneen bi beneen bi beneen bi si Mourtala moo teg si woon xeer bi ci jumaa jii photo yi ñu ngi nii tam buñ teg seen xeer bi photo baa ngi nii ngeen gis ko si Mourtala teg si xeer bi Alaaji Baara nekkoon xaalis Sëriñ Saliou si si si ñëw na fi ñu ñëwee itam lii mooy firnde bi waaw kon xool xool si Baara bi fi ñëwee mu ngi nii kon Bambey Sereer sant nañ Serigne Touba bu baax kon li ko suñu Maodo waxee nag ñun Serigne Touba la ñu am fépp fu mu ne Serigne Touba la li fi am ñëpp Serigne Touba li fi am tey Serigne Touba la kon sant nañ Serigne Touba bu baax a baax a baax dëgg bi itam mëntuñu dara lépp nag lu mu fi am rek Serigne bi ñu ko defal kon ñu ngi ñaan Serigne Mountakha yàgg bi yàgg wala wala kattan ndax wax dëgg yàlla Serigne Touba dimbali ñu ba liggéey bi mu ne nii ñu ànd koog moom muy université muy jumaa bi ba ca buy kenn desutoon kon sant nañ bu baax xëy na dafa guddi liñ bëggoon wax yëpp duñ ko mën a wax bon daal sant boobu la ñuy wax daal sant nañ bu baax sant nañ Mbacké